alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi alladi hadaana li haadaa wa maa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana allah wassalaatu wattasliimu alaa man buxita rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa shafiicinaa wa xabiibinaa muhammadin wa alihi wa saxaabatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax ci taw yu rëy ak xéewalam yu màgg yi nga xam ne indi gi mu ñu indil yonent bi alayhi mu ñuy gindi di ñu jàngal fi bëgguñu aw fa loolu xéewal la gu rëy goo xamante ne ak cant yàlla gu màgg war na ci ñu ngi koy sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal googu ak yeneen xéewal yu rëy yim ñu defalaat gannaaw bi te yépp juddoo ci xéewal gu màgg googu yonte boobu nga xam ne alayhi salaatu wassalaamu mi ngi ko indi woon ci guddi gii nga xam ne mooy guddik fukk ak ñaar ci weeru rabiul awal ñu koy wax weeru gàmmu ngir xéewal gu mag googu nag di ci fésal mbégte mu rëy ak di ci sant yàlla ci xéewale gim ñu ko xéewale ak di ci fàttaliku yonte bi alayhi salaatu wasalaamu ak ci jikkoom yu tedd yooya ak njàngaleem mu mat ma nga xam ne jàngale na ko moo tax boroom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi nga xamante ne wut yàlla di ko jaare ci yonte bi moo nekkoon seen mbir taxawal guddi gi soññee ci lool ci ñu koy màggal ak di ko fàttaliku ngir illa yooyu nga xam ne wax naa ko léegi moo tax jataay bii ñu ngi koy royee ci sëriñ bu mag bi ridwanullahi alayhi nga xam ne nettali nañu ay nettali yu bari yu wér yuy sax ne daana ko màggal te anam giñ koy defee fii di ko roye ci moom bokk ca waaye itam bala ñuy sóobu ci li ñuy wax mawlud bi te mooy njàng meeg yi nga xam ne mooy gàmmu gi da ci am yoo xamante ne munta ñàkk te mooy fàttaliku dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaamu dund gu màgg gu barkeel gu gànjaru googu nga xam ne defarug àdduna ak alaaxira mën nañ koo jàngee ci biir dund googu waaye man koo royee ci jikkoom yu tedd ya nga xam ne moom la ko yàlla defaloon kon waxtaan wi ci anam googu lay jëm mooy jël ay bind ci melokaan yi ñi àndoon ak yonte bi alayhi salaatu amee woon daan ko jëflante ak moom sang bu tedd booba alayhi salaatu wasalaamu loolu la sëriñ Cham Bousso Abdourahman war a ànd ak ñun tey ci jàngat day mel ne loolu yaatu la mooy waxtaane melokaanu saxaaba yi seen digg ak yonent bi alayhi salaatu wasalaamu lu yaatu la waaye dana ko jëmale ci jox ñu ay bind ci naka lañ dëggale woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka lañ ko gëme woon dëggal woote bi mu doon woote dana waxtaan itam seen cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam danañu jàngal itam nan la saxaaba yi maale woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ñu lenn ci ni nga xamante ne noonu lañ ko doon toppee moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ay ndigalam ci jëf ndigalam ak bàyyi ay tereem di ko daw bi ciy mujj mooy dana wax nan lañ joxe woon seen bopp ngir woote bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon woote ca mooy lislaam taxaw loola joxe gañ joxe woon seen bopp seen alal la ak seen bakkan ci loola ci itam Sëñ Saam dana ci ñëw joxe ñu ci ay misaal ci niñ ci àndee woon ak yonent bi alayhi ñoom saxaaba yi Sëriñ du ku ñuy eh, miinale ak jotaay bu mel nii wala ku ñuy xamle ndax ku ñu xam la miin ko ci jotaay yu mel nii muy di boroom xam-xam bu mag di ab gëstukat doy na ci sëkk ñu ne eh, ab docteur la boo xamante ne ab gëstoom da koy joyale jëmale ko ci li ëpp ci euh, lislaam waaye itam di gëstu bu baax ci yoonu sëriñ bi ak di ci bind saa yu nekk bokk ci responsable yi nga xamante ne ñoom la Cheikh Maodo Mountakha dénk jàngukaay bu rëy bii nga xam ne moom la fi defal sëñ Touba kon loolu dana doy sëkk ci junju moom mi ñu war a àndal jataay bi kan la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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kilifa yu tedd yi ànd ak ñun ci jotaay bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci guddi gu màgg gi di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul nu ko lépp luñ ci dige ci ku ko dundal suñu boroom defal nu ko ñu ci ñaanal suñu kilifa di cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu taala wa ayada wa nasar di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te yokk ko wér di ko ziyaare di teg ziyaare boobu ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom la dénk liggéey bii muy imaam sëriñ Aafiya Buso mi jiite daayiratu muxaddimatul xidma ak cheikh Ahmad al Badawi mi nga xam ne moo jiite rawdu rayaxiin di ziyaare mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom liggéey boobu di sant suñu boroom moom ñu xéewalee ñu toog fii di barkeelu ci guddi gi ngir waxtaane ku tedd ki muy sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa bokk ci waxtaane ku tedd ki waxtaane ay saxaabaam saxaabaam yu mag yooyu nga xam ne ñoo jamonoonteeg moom teel koo gëm ànd ak moom àndin wu rafet àndin woo xam ne jullit yépp dañ koo war a rey kon dañuy baaxoo waxtaane siiratu sallallahu alayhi wa waaye kenn mënta wax siira mu mat te boolewoo ci saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim moo taxoon sëriñ bi di wax ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu moo tax kon bu ñu tànnee waxtaane saxaaba yi ak ni nekke woon ak yonent bi sallallahu waxtaane seenu nekkiin seenu doxaliin ci seen diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa loola waxtaane ko dafa am solo lool ndax dañ leen caa war a roy rawatina kuy ab taalibe di taalibe bi sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa la mu waxoon mag ñi mooy saxaaba yi ñooy seen baay ci diine saxaaba yi ñooy seen baay ci diine mooy kon ñoom lañ war a teg suñ bët nañ nekke woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu di ko roy ñoom lañ war a teg ci sunu kanam ñoom nag suñu boroom da leen a defal ngëneel lu rëy rëy rëy ca ngëneel loolu mu bokk ci li leen ko may mooy ni nekke woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nekkiin wu mucc ayib nekkiin woo xam ne wu kawe la wu ñépp di war roy mu bokk ci ngëneel yi leen yàlla defal tagg gi mu leen tagg ci alquran ne ñoom day làq nañ ngërëmul yàlla suñu boroom defal na leen loo xam ne mooy texe gi gën a mag mu wax ne walsaabiquuna al awaluuna min almuhaajirina wal ansaar walladina tabacuuhum bi ixsaanin radia allahu anhum wa radu anhu wa acadda lahum jannatin tajri taxtaha al anhaaru xaalidina fiha abadan zalika alfawzu alazim loolu di nga lu màgg loo xam ne suñu boroom kon jagleel na leen ko waaye yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax nañu nañu sama saxaaba yi kenn ci yéen munta def lu baax lu romb li saxaaba yi def mu ne ku amoon ci wurus lu toll ne jabalu Uhud ni mu réyee ak ni mu diise nga joxe ko ci yoonu yàlla la nga def munta tolloog ab liibar ci li saxaaba yi def walla sax genn wàll liibar mu ne laa tasubbu asxaabi falaw anna axadakum anfaqa mithla uxudin zahaban ma balaga mudda axadihim wala nasifahu kon ñoom ay sang lañ yoo xam ne suñu borom da leen a defal ay jagle suñu borom da leen tànn moo taxoon Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu anhu waxoon ne bi yàlla waxee ne qul alhamdulillahi wa salaamun ala ibadihi allazina istafa moom dane nga xam ne ñoom la yàlla tànn mooy saxaaba yi bi sallallahu alayhi wa sallam wa radiya anhum kon nag nga neel yu bari yooyu nga xam ne am nañ ko bokk na ci li leen ko may nekkiin wiñ nekkoon ak sallallahu alayhi wa sallam li ko sëriñ xam di waxee léegi mu ne su koo dajal mu ne su ko matal waaye dañ ciy tànn yenn yoo xam ne danañ ko yóbbuloo ci niñ nekke woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir nu man leen caaroy te loola ñoom bokk na ci dëggal gi nga xam ne dëggaloon nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko soppe waaye ni ñu ko doon toppe ay ndigalam di bàyyi ay tereem ak worma ji ñu ko joxoon wegeel gi ñu ko joxoon waaye nag taxawaay bi ñu amoon ci di ko laabiire bu diisoog ñoom ñu wax ko xalaat yoo xam ne yonent bi alayhi salaam wasalaam daana ko jëfandikoo bu ñëwee ci li jiitu mooy te mooy cosaanul pas-pas mooy fànn ma ngu pas-pas mooy dëggal yonente bi alayhi ci lépp lum indi lépp lum wax lépp lu mas a jógee ci yonente bi alayhi salaatu dañ ko daan dëggal xamoon ne la muy wax du bànneexu bakkanam waaye waxyu la wu jóge ci suñu borom wa ma yantiqu anil hawa la huwa illa waxyun yuuxa loola ñoom dañ ko gëmoon gëm gu mat sëkk moo taxoon lu mu mës a wax ñu dëggal ko ci jële nañ ci abdullah ibn amr radiallahu anhu mu ne man day dama baaxoo woon lépp lu ma dégg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ma bind ko lu mu wax rek ma bind ko mu am ci waa Quraysh mooy lenn ci jullit yi ne ko yow day yaa ngi bind lépp loo dégg ci yonente bi alayhi salaatu salaam te moom nit la koo xam ne léeg-léeg mu wax ci mbégte léeg mu wax ci mer xaw a juñu ne mën naa am lu mu wax loo xam ne jërul bind ne bañ ma ko waxee ma daal di bàyyi la ma doon def waaye waa wax ko yonent bi alayhi salaatu ñëw wax ko ko ne ko dama daan bind loo ma sa ma bind ko waaye ñu ne ma kat ah moom kat léeg-léeg mu wax wax yoo xam ne ci mer la koy wax wala wax yoo xam ne ci mbégte la koy wax nee na ba ma ko waxee yonent bi sallallahu alayhi dafa jël baaraamam ju joxoñ ko ci gémmiñam jël baaraamam joxoñ ko ci gémmiñam ne ko bindal waat naa ko ci yàlla mi nga xam ne sama ruux mi ngi ci loxoom lenn lu dul dëgg du ci génne sama gémmiñ gi lu dul dëgg du ci génne kon loolu day tegtale ne moom lu mu mës a wax dëgg la te noonu la ko saxaaba yi gëme woon ñoom ñëpp ngëm googu ak dëggal googu dañ cee ràññiku woon waaye xam nañ ne dëgg nañ ba tàyyi kii nga xam ne mooy saxaabaam bu mag bi di abu bakrin siddiq radiallahu anhu moom nim ràññikoo woon ci dëggal yonente bi alayhi salatu ci lépp lu mu a wax yonente bi àgg na ci wax ne ngir ngëneelul sa ngëneel loolu nga xam ne abu abubakar am na ko ci dëggal yonente bi alayhi mu ne man de yàlla dama yónni ci yéen bi ma ñëwee bi ma waxee ngeen weddi ko abubakar moom dëggal ko inna allaha baasani ilaykum fa qultum kazabta wa qaala abubakar sadaq kon loolu ngëneel la lu ko yàlla defal ci dëggal gi nga xam ne ci la dëggaloon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun ñépp ñi ngi dégg yàgg nañ koo dégg li tax ñu tudde ko as siddiq mooy bokk na ca xew-xew boo xam ne ñu bari saalit nañ te mooy al israa wal miraaj suñu boroom bi mu gàddaayee bi mu rañaanee yonente bi alayhi salaatu wassalaam jële ko makka indi ko baytil maqdis ilal masjidil aqsa ba mu xëyee ba mu ko waxee ñu bari saalit nañ ñi ko weddi woon ne ah lii nag de moom ñoom yéen ñi ko gëmmoon sax tey moom wax na loo xam ne mënu leen koo nangu mu am ci biir jullit ñi ñoo xam ne sax dem nañ ba murtad ne nag tey moom li wax moom xel mënu koo nangu ndax diggante baytil maqdis ak makkatal mukarrama mën na junniy kilomètre ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk loola nga ne dox naa ko ci genn guddi dem dël siwaat ca bët setagut loola wax la joo xam ne rëyoon na lool jamono jooja moo tax ñu ñëw ci Aboubacar ne ko ah sa waa ji de moom tey li wax mu ne lu mu wax ñu ne ko moom day nee na neenaay ndax ya yazumu sax zaama muy neenaay dañ ko rañaane ci Makka yóbbu ko baytil maqdis mu dellu siwaat ci bët gudd mu ne waaye moo ko wax ñu ne ko moo ko wax de mu ne kon li mu wax dëgg la nga xam ne noona la dëggale yonente bi alayhi salaatu wassalaam kon mu wax ne man dana dëggal yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci lu gën a sori loolu ndax koo xam ne subaa ngoon mu naan ma yàlla nee na di ma indil xabaar bu jóge ca kaw asamaan ma di ko gëm kon bu ma waxee lii dama koy gëm moo tax ñu tudde ko as-siddiq dëggalaakoon bi ki nga xam ne da doon dëggal yonte bi alayhi salaatu wasalaam nga gis Sëriñ Tuubaa bokk na ca la ba mu koy tàgg lam ca jiital ne abu bakrin siddiqu du sidqi wal wafa rafiqu nabiyil mujtabal gaara an waaye gis nañ yeneen saxaaba yoo xam ne seenu dëggal dafa fés lool ndax yonente bi sallallahu alayhi mos naa julli ba noppi jullik suba daldi wëlbatiku jàkkaarloog nit ñi ne leen am na koo xam ne daa jiitaloon aw nagam bam yàgg mu war ko dóor ko nag wi wax moom ne ko ñun binduñu ngir lii yàlla sàkkuñu ngir ngeen di ñu war di ñu dóor waaye yàlla dañoo sàkk ngir ñuy liggéey di bay ba mu ko waxee nit ña ña toogoon ca jotaay ba am ñu ne subhanallah nag wuy wax nag ah, nopp dalooti na waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daal di wax ne man day gëm naa ko Abu Bakar gëm na ko Umar gëm na ko ca booba ñoom ñaar nekkuñ ca jotaay ba ngir kon xam dëggal guñ doon dëggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu it dëggal googu nga xam ne lu yonent bi mas a wax ñu ne dëgg la sidna abu hurayrata radiallahu anhu nettali na ne yonent bi mos na ma saytuloo azaka maanaam di ma ko sàmmloo booba sax murum koor la woon ay murum koor la wax am ku ñëw tàmbali di ca sàkk di ca jël ma ma bett ko fa ba ma ñëwee ma ne ko waat naa ci yàlla yow dinaa la boole ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam danaa la yóbbu ba ci yont bi mu liwaayu ko ne ko dimbale ma rek aajo rek moo ma def loo lii dama sonn am ay aajo yoruk njaboot jaaxle moo tax ma def ko nee na ma daat koy bàyyi ba ma xëyee ma nettali ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu moo ma ne sax waaw ki nga jàppoon biig foo mu jëg moom ma nettali ko la ca xaw ne ko dama koo jéggal yonent bi ne ko ah xamal ne kooke nag lam la wax moom wuute naag dëgg waaye dina dellu si nee na bam ba ma yonent bi ne dina dellu ca laa xame ne waa ji dina dellu si nga xam ne wax bi ko yonent bi sallallahu alayhi nee na ma xam ne dina dellu si te noonu mu ko waxee woon noonu la amee waaja dellu si waat na li ñuy fi yitteel rek mooy li bi ko yonent bi ko dina dellu si rek amatul lu muy sikk sàkk xam na ne waa ji dina dellu si kon yooyu lenn la rekk ci ay misaal yooyu wane yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñi mu àndaloon lum leen mës wax duñ ca am benn dut duñ ca am benn sikk sàkk duñ ca am benn werante nam leen ko waxee noonu lañ koy jàppee noonu lañ koy gëmee loolu nag day loo xam ne kon lu mënta ñàkk la ci nit ak kilifa gu mat kilifa lum ko wax da ko war a doyloo da ko war a jàpp da ko war a gëm waaye mu ñu jógee ci dëggal googu ñëw ci cofeel gi nga xam ne moom la saxaaba yi ëmbaloon yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñoom dañ koo bëggoon lool ndax bëgg yonente bi dafa bokk ci ponki gëm yàlla nit ki ak gëmam yàlla munta mat te yonente bi gënalu ko lu dul moom mu yonente bi alayhi bi lay gën a bëgg ci lépp moom lay gën a bëgg ci njabootam moom lay gën a bëgg ci alalam moom lay bëgg ci boppam sax yonent bi moo ko war a gënal moo tax nit ak ngëmam ab jullit ak ngëmam doog a te loole abdullah ibn hisham nettali nag nee na dañoo nekkoon di ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi jàpp ci loxol sayidna omar omar ne ko yow yonent bi yaa ma gënal lépp ba mu des sama bopp yonent bi alayhi salaatu ne ko ah déedéet sa ngëm des na de kon waat naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk sa ngëm du mat feek demuma ba gënal la sa bopp ca saasa Abubakar ne ko léegi nii de moom may wax ak yow yaa ma gënal sax sama bopp yonent bi sallallahu alayhi ne ko ah léegi nag kon sa ngëm mat na sëkk kon loola cofeel bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bokk ci ponki gëm yàlla ak gëm yàlla munta mat ci nit ki yonent bi gënalu ko boppam ak leneen moo tax saxaaba yi bëggoon yonent bi bëgg gu dëggu ndax ñoom dañoo dund ak moom gis ay jikkoom dégg ay waxam ànd ak moom xam ko dëgg-dëgg xam bëgg giñ ko bëgg dugg ci seen xol jaxasoo ci seen deret sayduna sayduna ali radiallahu anhu mos nañ koo laaj ne ko waaye nu ngeen bëggee woon yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne waat naa ci yàlla ne moom moo ñu gënaloon suñu alal gënaloon ñu suñu njaboot gënaloon ñu suñuy baay gënaloon ñu suñuy ndey gënaloon ñu sax ku mar na muy bëgge ndox mu sedd ni ñu bëggee woon yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ko raw kon loola day wane bëgg giñ bëggoon alayhi salaatu wassalaam sayidatuna aïcha radiallahu anhu mos naa nettali ne am na ku ñëwoon ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow day yaa ma gënal sama bopp yow yonente bi yaa ma gënal sama doom man damay toog sama kër sax di la fàttaliku sama xel dem ci yow duma la mën a muñ damay ñëw ba agsi ba xool la waaye nag sama xel day dem ci dee xalaat ne danaa fi jóge yow it danga fi jóge ma xam ne yow boo boo fi jógee ca ajjana ya gën a kawe ngay nekk ànd ak yonente yi te man su ma duggee àjjana maa ngi ragal lool ne duma la gisati ak ni ma la bëggee yonente bi alayhi wasalaam tontuwu ko dana teg jibril alayhi salaam moo ñëw wàcce aaya bi yàlla di wax wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika maa allazina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhadaai wassalihina wa xasuna ulaika rafiqa kon yàlla di wax ne ku topp yàlla topp yonent bi ñooñu ëllëg suñu boroom da leen di defal ay da leen di booleeg ñamu defal ay xéewal ci yonente yi ak ña dëggal ak ña shahid faatu ci yoon yàlla ak nit ñu baax ñu kon loola ngir dalal xelam ne ko ku ànd ak yonente bi alayhi salaatu bëgg ko bu ëllëgee suñu borom dana la yéegal fa mu nekk yàlla ñu ko yàlla defal ñu gis ci ay bokk ci misaal yi wane saxaaba yi niñ bëgge woon yonente bi alayhi salaatu wassalaam soxna si nga xam ne ci bani dinaar la bokkoon nga xam ne ci xareb Uhud da ca ñàkk boroom këram ñàkk ca mbokkam ñàkk ca baayam waaye ñu ñëpp bañ ñëwee tàgge leen lam wax mooy waaw sang bi nag yonent bi alayhi salaatu moom lu ko jot ñu ne ko ah, moom day mi ngi ci jàmm dara jotu ko ni nga ko bëggee daal yàlla def na noonu loola doyu ko mu ne mu ne leen wan leen ma ko ba ma gis ko ñu ñëw ba ne ko yonent baa ngi nii alayhi salaatu wasalaam mu ne kon kay jàmm la leneen lu xew ginnaaw yonent bi mucc na rek loola jàmm la kon xool leen googu cofeel cofeel googu nga xam ne feeñ na ci xubayb ibn adi nga xam ne moom waa Quraysh yéefar yi ñoo ko jàppoon yóbbu ko ngir bëgg koo rey Abu Sufyaan moo ne ko waaw waxal nag fii su fekkee ne bëgg nga fii nga toog tey ñu indi yonente bi alayhi salaatu ci sa palaas yow ñu bàyyi la nga dem sa sa njaboot moom ñu téye ko def ci yow def ci moom liñ nar a def ci yow nii mu ne waat naa ci yàlla waxuma ngeen di ko indi fii muy nekk sama place waaye fam nekk ak dëgg di ko fa jam ngir man ma mucc sax jëralu ko ko mu nekk ak dégg kese bëgguma mu jot mu jotuma ci ak dëgg ko nar a jam nga xam ne kooka yonent bi sala alayhi salaatu wasalaam dafa jeex takk ci bëgg ko ba bëggul dara mën naa joxe bakkanam ngir yonent bi ak dëgg sax du ko jam moo taxoon Abu Sufyaan ne gisuma ci nit ñi koo xam ne ñi ànd ak moom bëggee nañ ko ni ñi ànd ak yonte bi alayhi salaatu salaam niñ ko bëggee loolu Abu Sufyaan moo ko waxoon nga gis bëgg giñ saxaaba yi bëggoon yonent bi dafa feeñ ci àgg nañ ci lu yonent bi bëgg sax ñu bëgg loola ku yonent bi bëgg ñu bëgg kooka dañ ci joxe ay misaal sax ci ñoo xam ne aw ñam wuñ xam ne yonent bi bëgg na bëgg na ko daa tax ñu bëgg ñam woowa loolu dañ koy nettali ci anas ibn malik radiallahu anhu man nee na ba ma xamee ne yonent bi bëgg na li ñuy wax naajo ci ñun defe naa naajo la xara nee na ba ma xamee ne yonent bëgg na ca laa doxee man bëgg ko waaw ba mu ko bëggee rek man laa ko bëgg jaabir ibnu abdullahi nee na moom bineegar ba mu déggee yonent bi ne bineegar baax na nee na falaa doxe bëgg bi na yegg nga xam ne dafa àndoon ak yonte bi alayhi salaatu wasalaam dem këram yonte bi génne ñu génneel ko ay daggiti mburu yonte bi ne ah xanaa lenn luñ ko mën a ñeexee nekku fi de ñu ne ko ah bineegar doo nga fi nekk de mu ne ah bineegar kay baax na nee na man ca laa doxi bëgg bineegar moom jaabir radiallahu taala anhu ndax dégg gi mu déggoon yonte wax ne bineegar baax na nga gis Omar ibn Amr ibn As radiyallahu anhu dafa mës a ñëw ci yonent bi ne ko waa man de dama bëggoon sang bi nga wax ma ku la gënal ci nit ñi mu ne ko waaw loolu moom lu tax nga di ko laaj mu ne ko xanaa rek bu ma xamee koo bëgg man ma bëgg kooka alayhi salaatu wasalaam ne ko ah, soxna Aïcha mu ne ko waa ci góor ñi nag koo ci gën a bëgg mu ne ko Abu Bakar radiallahu anhu kon noonu la saxaaba yi bëggee woon yonent bi alayhi salaatu muy ay misaal yoo xam ne du jeex loolee yeeg bind la bu rëy ku ànd ak sa kilifa boo bëggee jariñu ci moom danga ko bëgg moo taxoon sëriñ bi ba muy lim melokaani murid saadiq da caa boole woon as fi mahabbati cheikhi abad waaye ku ne xam na ne bëgg nag la koy màndargaal mooy topp ki nga bëgg ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim bëgg yonent bi nim feese woon ci seen xol moo taxoon ñu ko daan topp ay ndigalam di moytu ay tereem ndax loola mooy màndargaal ak bëgg qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurun rahim moo tax ni niñ doon toppee yonent bi moom waxuma la ci ndigal yi nga xam ne da leen ko daan jox ci jaamu yàlla yi waaye lépp loo xam ne mbirum aadala la sax lam leen ca digal dañ koy daal di jëfe ca saas awf ibn malik al asja'i radiallahu anhu day nettali ne maag samay moroom muy lu mat juróom-ñeenti nit walla juróom-ñetti nit wala juróom-ñaar nettali bi da koo tënkut dañoo nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ñu waaw du ngeen ñëw jaayanteeg yonent bi yàlla bi nee na booba dañuy dogg dugg ci lislaam rek ñu ne ko ah waaye ñun jaayante woon nanook yow yonente bi baamu ko ne ko du ngeen ne du ngeen ñëw jaayanteeg yonente yàlla bi nee na ñu tàllal suñuy loxo ne ko jaayante nañook yow waaye nag wax nu li ñuy jaayanteeg yow lu mu doon mu ne leen dangeen di jaayanteeg man ci di jaamu yàlla ca du ngeen ko bokkaaleek dara dangeen di jaayanteeg man ci saxal julli juróom dangeen ngeen man ci topp ma waaye nag mu am baat boo xam ne ba mu koy wax sax da koo yàllu ne waaye bu ga ngeen jaayanteeg ñoon ca bu leen laaj kenn dara bu leen laaj kenn dara jooju daf koo yàllu aw fu nee na ñëw ñu ma toogaloon gis naa ci ñoo xam ne àgg nañ ci seenub yar buñ nekkee ci kaw giléem gi seenub yar wadd sax duñ ne kenn kaay jox ma yar bi duñ laaj dara na leen ko yonente bi waxe woon ne ngeen bañ a laaj dara dañ koy appliquer ci lépp ba sax bu seen dara waddee sax dañuy wàcc faral ko seen bopp waaye duñ ko laaj kenn waxuma laaj nag di tàllal seen loxo di laaj kon loolu day wane dëggal guñ dëggaloon ci topp yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci ndigal lum leen jox loola abu mas'ud al badri am na lum ca nettali nee na man dama amoon nguur soo xam ne dama ko doon caw bi ma koy caw ma dégg ak kàddu ci sama ginnaaw waaye xaw ma ku mu ndax booba mer ni ma mere woon xaw ma xaw ma xaw kuy wax ku may woo am na ku may woo daal waaye xaw ma ku mu nee na bi mu gënee jege si ma xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñëw ma daal di sañ sànni yar ba fekk boobu mi ngi may woo naan ma aba mas'ud aba mas'ud ba ma sànnee yar ba mu ne ma xamal ne kii ngay dóor ni ko jekkoo ni la yàlla jekkoo moo ko raw ni nga ko ëppee doole ni la yàlla ëppee doole ni nga ko mënale ni la yàlla mënale la moo ko raw nee na fa jóge bàyyi dóor sama nguur amul kenn ku may tegati sama loxo ci sa kaw kon ngir jëfe ndigalalu yonente bi ja jaabir ibnu abdullah nettali na ne bisu àjjuma yonente bi dafa taxaw bi mu taxawee ñëw ba ci minbar bi daal ne jekki leen jekki leen bi mu waxee jekki leen fekk na ibnu mas'ud ma ngay waaj a dugg ca jàkka ja ba mu ne jekki leen moom ca foofa la daal di yegg suuf te buntu ba ba mu déggee jot ci loolu rek moom baadaa bi jot ci fan toog fan taxaw nga xam ne ak séddu doon ci jàkk bi waaye ndigal yéen bi moom bii dégg ne jot ci loolu moo tax di bu jiitu muy loolu day wane li ñu doon topp ñu di wax muy semence bi di jëfandikoo saa bu digal la rafet rek daañu ko am lu muy lu muy lu muy dong dong te loolu lañ si mën ci saa ne am lu ñu xal si waat. loolu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma loolu yéen nga alayhi salaatu wa salaam moom la gis ci la xam kenn ci saxaaba yi jaaroo Yunus yéen bi xale sal dafa wax ci waxtu ba xam ne ko gisee la ko yéen jaaxal ngeen la naka la nit di di jële aw xel di ko def ci loxo yéen bi dafa sànni alayhi salaatu wa salaam daal di jàll la ñettoo nag kooka ne ko waaw jaaro bii mën nga koo jël boo demee nga jariñoo ko ca leneen ca bañ koo takk waaye lam leen wax dafa waat ci yàlla ne jaaro bi dootuma ko laalati lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël sànni ko man dootuma ko jëlati wallahi la axuzuhu abadan waqad taraxahu rasulullahi sallallahu alayhi wa kon loolu day tegtale topp gu saxaaba yi ridwanullahi taala doon topp ndigalul yonent bi alayhi salatu loolu kon doon loo xam ne képp ku bëgg a jariñu ci sa kilifa fokk nga di ko topp di topp ay ndigalam bañ caa deng deng waaye noonu ñu ko doon toppe niñ ko doon wormaale ak niñ ko doon màggale noonu it lañ ca meloon ci màggal ko ak wormaal ko radiallahu taala xam nañ xam ngeen ne màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak wormaal ko ak wekk ko dafa bokk ci warugar yi war jullit yi seen diggante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko suñ boroom wax ne inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran li tuuminu billahi wa rasulihi wa tuazziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu bukratan wa asila wa tuazziruuhu wa tuwaqiruuhu mufassirin yi dañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko moom saxaaba yi kon niñ bëgge woon yonent bi noonu lañ ko doon wormaale noonu lañ ko doon màggale di mormaalaka màggal lépp lu jóge ci moom te ku ne dégg na Urwa ibnu Mas'ud al-Thaqafi nga xam ne booba duggagul ci lislaam ba muy nettali ba mu demee ca négociation yi amoon ci sulxul Xudaybiya nam gisoon saxaaba yi di ko doxaleek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëwee dana leen yéen sama nit ñi waat naa ne fu ne dem naa fa buur bu ne dem naa fa dem naa ci buur yu bari dem naa ci xaysar muy César buuru Rome dem naa ci Kisra buuru Faris dem naa ci Najashi buuru Habasa foofu yépp dem naa fa waaye gisuma benn buur boo xam ne ay nitam dinañ ko màggal di ko wormaal ni saxaaba yu ne muhammad di worbaale ak di màggale ndax waat naa ko ne amul sax lu muy yàbbi ci gémmiñam ca du ne dana am ku ko aw bu ko awee da koy diwoo da koy diwoo ci karamam di ko raay ci ab daram lu mu leen digal dañ koy njëkkante bu njàpp bu jàppee njàpp itam ma dañ cay xaw a xeex ngir kenn ku nekk bëgg caa jot buy wax ñépp wàcce seen kàddu te sax duñ jàkkaarloog moom di ko ne ko jàkk di ko xool lépp ngir warmaal ko ak màggal kon noonu la saxaaba yi ridwanullah alayhim doon màggale yonent bi mu bari ci ay misaal lool ku ne dégg na abu ayub al ansaari xam ngeen ne këram bi yonent bi gàddaayee Makka ñëw Madina këram la wàcc këram nekkoon ñaari niveau moo amoon kërug suuf ak kërug kaw yonent bi alayhi bi mu ñëwee dafa dal ci kërug suuf bi bi ñu demee ba guddi ba tëdd jot abu ayub dafa wax soxnaam ne ko ah nun naka lañuy ñuy doxee foo xam ne mi ngi tiim bopp yonente bi alayhi salatu wasalaam naka la ñuy tëdde foo xam ne mi ngi tiim bopp yonente bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne guddi googu dañoo wetu foo xam ne xam nañ ne fii tiimut yonente bi alayhi salatu wasalaam fa lañ fanaan ba bët set ba ñëwee ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam liwaayu ko ngir mu yéeg ci kaw ñoom ñu wàcc suuf mu ne leen nag suuf gi moo gën a jàppandi ci man waaye abu ayub da ko ne du ma nekk ci fenn foo xam ne dafay kawe yonent yow nga nekk ci ron foofa ci boob ba mu ko waxee loola ci la yonent bi alayhi salaatu salaam nangu yéeg ca kaw moom mu wàcc nekk ci suuf xoolal ma jooju jooju wor ma amr ibn Aas radiyallahu anhu nee na bëgg gi ma bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo raw bëgg gu ma bëgg leneen ca dama ko doon ni ni amul lu gën a màgg ci sama bët ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam àgg naa ci mënuma koo xool ne ko jàkk di ko xool ak sama ñaari bët ngir ni ma ko màggale buñ ne ma woon nu yonent bi mel duma ko mën a wax ndax duma ko xool ndax duma ko xool xool jàkk di ko seetantal ndax war ma ji ma ko warmaal mu ne mu teg ci ne xam naa ne su ma faatu woon ci xaal melokaan boobu yaakaar naa ne àjjana lay jëm nga gis Barra ibn Azib radiyallahu anhu wax ne génn nañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu bu ñu nekkee ci wetam yar bi ñuy àndal dal gi ñuy àndal worma ji ñuy àndal day mel ne suñu kaw bopp yi ay picc ñoo ci toŋ loolu Buraydata wax na ko nee na buñ mosaa nekk ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp dañuy sëgg kenn du yëkkati sab gis di di ko di jàkkaarloog moom ngir warma juñ ko warmaal saa bu mosaa waxit dañuy wàcce seen kàddu kon noonu la ñu warmaale woon yontu bi alayhi salaatu wasalaam abdullah ibnu abbas nett na ne bi may gone mos na ñëw kër yonent bi sallallahu alayhi wa fekk muy julli maanaam julli suba wala boog dinaa fi la ci guddi gi nee na ma julli ci ginnaawam yonent bi daat may yootu ñoddi ma ba ma tolloog moom nee na ba mu tàmbalee julli ba mu kàbbaree ma daal di delluwaat ginnaaw yonte bi ba mu jullee ba noppi ne ma waaw lu xew ba ngay deltuwaat ginnaaw mu ne ko waaye yow yonente bi ndax kenn war naa julli tolloog yow te yow yaay yonent bi nga xam ne yow la yàlla yónni jox la la jox nee na wax jooja da wax daay yéem yonente bi alayhi salatu wasalaam ca la ñaanale yàlla dolli ma xam-xam dolli ma ak dégg kon loolu day wone war ma ji saxaaba yi war maaloon yunt bi ak màggal gi ñu ko doon màggal loolu àggoon na ci lu mën a doon yunt bi lañ cay jiital xuseyfata nee na bu buñ mosaa teew nekk ci yunt bi alayhi salaatu wasalaam bu am aw ñam ñëwee kenn du dugal loxoom ca ñam wa te yonent bi njëkkutu dugal loxoom jaabir nee na ànd nañoo ak yonent bi sallallahu alayhi ci barab bu ñu wax zaata riqa nee na foofu nga xam ne dafa tàng nee na saa bu ñu demee ba gis ker goo xam ne ker gu dëll la ker googa dañ koy bàyyeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun duñu dem wuti feneen fuñ kerloo xoolal jooju jooju war ma joo xam ne ëmbaloon nañ ko yonent bi alayhi salaam kon loolu it bind bu am solo la boo xam ne war nañ koy jànge ci saxaaba yi ku am kilifa di ko warmaal di ko jiital di ko màggal kon xëy na liñ ci daaneele mooy ni ñu ko daan labiré loolu lu yaatu la waaye dañ ci joxe misaal yu gàtt rekk ndax yonent bi daf daan diisoog saxaaba yi ndax yàlla moo ko ko digaloon wa shaawiruhum fil amr doon koo xam ne bu ma saa diisoog ñoom it dañ koy wax lañ yaakaar ci seen xel jàpp ko ne mooy la gën te yonent bi sallallahu da ko daan jëfandikoo di maanaam buñ buñ koy jox laabiire di ko jox conseil yonent bi alayhi salaam da ko daan déglu da ko daan jëfandikoo ca loola bu ko masaa defit njariñ da cay feeñ loola da ko daan def ngir jàngale ko kenn ku nekkoon boo àndeek kilifa boo gisee lu baax xalaat bu baax war nga ko jox gis nañ ci sulxul Xudaybiya xam ngeen ne bi demee ba négocier ba signer accord nga xam ne yonent bi dafa àndoon ak mbooloo ngir umra ba ca mu bokk ca akkoor ba ñu delluwaat ba déwén jullit yi nañu waaje woon indaale seeni gàtt def seeni armal loola diis ci ñoom jóge màkka jóge madina ba màkka ñu delluwaat noona ak seeni armal dindi seeni armal te agguñu ba wër kaaba ga def seen umra loola metti woon na ci ñoom diis ci ñoom moo tax ba yonent bi génnee digal leen nañu rey seeni had yu te wat seenu bopp te yewiku ci armal bi nen da ko wax ñépp toog ndax jaaxle ak ak ak daal am lu leen lu lu mu diis ci ñoom bam duggee ci biir ci soxna umu salamata nga xam ne moom la àndaloon ci ay soxnaam wax ko li xew soxna umu salama moo ko ne yow génnal rekk génnal rekk def li nga bëgg a def génnal rendi boo rendee nga watu defal loolu nee na ba yonent bi génnee waxaatul kenn dara daa daa di jawali rek ci gàttam daat koy lewetal daa di woo ka koy wat mu ñëw tàmbali ko wat saxaaba yi biñ gisee yonent bi def loolu rek ñoom ñëpp dañoo daal di jóg buur kenn ku nekk ka yoroon xat ku nekk nga lewetal ko ñuy watante ba nar a gaañante am lu leen metti lool ci yeex gi yeex a jëfee loolu nga xam ne moom la yontu bëggoon ñoom ngir diis gi diisoon ci ñoom loola kon xalaat bi ko soxna ummu salamata jox gis nga ni mu amee njariñ ci diggante boo xam ne xel yépp jaxasoo woon na mu diisoon lool waaye mu jox ko xalaat boo xam ne ca la lépp ko lu mel noonu jamono yi nga xam ne biñ jógee xaswatu Tabuk mu metti woon lool sori ñu dem ba jullit yi seeni yóbbal jeex liñ yoroon ci ravitaillement jeex wala di bëgg a jeex desatut lu bari ñu dem ba xalaat sax ne teeñoo ñoo rey ci waruwaay yiñ yoroon ngir man caa xewlu man caa yóbbalu bañ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi mu ne ah waaw te ngeen def leen loolu ginnaaw moo fi sës ba ko Seydina Omar déggee daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ah ne ko daal buñ leen buñ mënoon a bañ a rey suñu waruwaay yi ndax fañ jëm sori na te amaat ko yombut te sori nañ Madina daanaka tee ñoo dajale kenn ku nekk la nga dese ci yóbbal ñëw nga ñaan ci barke man naa am yàlla barkeel ko noona lañ def yonent bi alayhi salaatu bañ dajalee ba mu ca ñaanee suñ borom barkeel ko ba nga xam ne ñëpp xewlu nañ ca ba amatuñ benn jafe-jafe kon loola yi dañ ci doon joxe misaal ci saxaaba yi ni ñu doon joxe ay laabiire ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ak di ko jox ay xalaat bu diisoog ñoom loola it day bind boo xam ne ñi ànd ak kilifa dañ koo war di jëfandikoo ci seen digg ak seen kilifa googee ndax lépp rek luy defar lay doon kon loolu mbokk yi ci ak tënk dañ ko doon tënk rekk ci ni saxaaba yi nekke woon ak yonente bi alayhi wassalaam ci niñ ko doon dëggale ci lépp lu mu wax ci niñ ko soppe woon mu gënal leen lépp gënal leen seen bopp gënal leen lépp waaye niñ ko doon toppe ci lum leen mën a digal ak niñ ko waromaale woon ak ni nga xam ne noonu lañ ko doon laabiire loolu doon loo xam nag ñëpp dañ koo war a roy jullit yëpp dañ leen caa war a roy ndax loola mooy yar bi nga xam ne ñoom ñi génn ci daara yonte bi alayhi salaatu wasalaam yar boobu lañ ame woon loolu it bu ñu xoolee suñu kilifa gi cheikhul xadim radiyallahu anhu képp ku bëgg a jariñu ci sa kilifa melokaan ya nga xam ne moom la waxoon boo xoolee melokaan yu saxaaba yi dangay gis ne mooy melokaan yooyee moo taxoon mu waxoon nañu mel sa saxaaba yi ñooy seeni bàyyi ci diine kon yàlla yàlla defal ak dégg ak topp boole ñi nga xam ne dañuy xeñtu melokaani saxaaba yi defal ñu ak texe defal ñu bokk ci soppe yonente bi alayhi salaatu wasalaam defal ñu ñu bokk ci njaboot gi nga xam ne li Sëriñ tubaab bëggoon ci melokaan yu mel nii dana nekk ci ñun di ko ñaanal mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh mu Mountakha ci barkeb guddi gi yokk ko wér yokk ko kàttan di ñaan yàlla fekkewaat ko at yu bare bari ca suñu boroom nangul ñu di ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la teg ci bopp liggéey bi suñu boroom defal leen tawfiq wassalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Cham ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ne ni ma ko junjee woon ci njëlbeen mooy waxtaane melokaanu saxaaba yi niñ doon jëflante ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam day ni ñi doon topp jotaay bi jël nañ ay bind yu am solo ci ni sunu royuwaay yu mag yooyu toppee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci tomb yi nga xam ne moom lañ ko séddale woon bu nekk joxe na ci misaal mu doy sëkk misaal wala ay misaal yu doy sëkk yoo xam ne ku ci topp wala ku ko dégg te jëfe ko wala nga dégg ko tey ab gëstukat soo ca yaatalee danga nga ca am lu doy sëkk mu mel ne tomb yooyu weesuwul ku nekk ci ñun ni ñu sëriñ bi joxoñee woon saxaaba yi ci wan ñu ne ñooy suñu ay royuwaay ci diine ne moo ñooy seeni baay ci diine te mooy ñoom lañ war a topp seeni mboor di jéem a mel seen melokaan wu sell wu wu am solo ba nga xam ne moom lañ nekkee woon ak sang bu tedd bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy dëggaluk aboubacrin siddiq nga xam ne doo deng deng ci jenn wax ju bàyyi ko ci sang bi alayhi salaatu wasalaamu ndax moom wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa waaye bokk na ci melokaan yi nga xamante ne jàngal nañu ko tey te ñu war koo roy ci yonte bi alayhi salaatu wasalaamu muy bëgg giñ ko bëggoon te mu joxe ci ay misaal yu bari waaye suñu sukkandikoo ci bëggug sayidina ali karamallahu wajahahu ni bëggee woon yonent bi aleyhi salaatu salaam te tudd na ko ci misaal wax ni ñu meloon ci moom ku ko roy ca bëggam bëggoon yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, di nga am lu kawe njort waaye topp ko moom yonent bi aleyhi salaam ndax topp ko mooy bëgg yàlla loolu la alquran jàngale bu ngeen bëggee bu ngeen bu fekkee li ngeen di wax ci bëgg yàlla dëgg la ci yéen topp leen ma man yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci li may jàngale waxaat ñu ne ñu lu leen yonente bi alayhi salaatu indil na ngeen ko jël waaye lum leen tere na ngeen ko teet di ko dawee seen xelu bakkan kon topp yonente bi alayhi salaatu kenn ku nekk war na caa roy ibnu Mas'ud mi nga xam ne moom la joxe misaal ca moom ci ba mu diggee ne yonte waa sa sa salaam wax na ne toog leen rek daa daa di egg suuf moom fa mu nekk ba kilifa ga soxla ko door koo woolu fa mu nekk loolu ci topp mu ne su ko weesu waaye ci wormaal ak wekk yonte bi alayhi salaam joxe na ci ay misaal yu bari yu am solo yoo xamante ay seede la yu ay nit ay kilifa yu mag yoo xamante ne seede nañ ne ci taarix walla ci histoire xamuñ ku aw nitam di warmaale di wege ni saxaaba yi lay alayhim wege woon yonent bi salaam niñ ko warmaale woon xamuñ ku aw nitam masa warmaale noonu loolu nag ku ca roy abu ayyub al ansaar yi mi nga xam ne ci këram jàpp na ne bu yonent bi alayhi salaam nekkee ci suuf wëree suta toog fu ko kawe waxuma la ak di yéeg fu koy tiim loola ci warmal mu ne su ko weesu waaye la leen yàlla digaloon ca suratul xujuraat wax leen ne bu leen kaweelati seen kàddu ak ay melokaan yu bari yoo xam ne da wax na leen bu yonent bi sa salaam teewatee ci seen biir na ngeen melowoo melokaan wi melokaan yooyu yëpp melokaani warmala ak wegeel goo xam ne war nañ ko am ci yonent bi alayhi salaam waaye ci jeex ci mujjantal wax na ne ñoom it nañ daan ànd moom di ko topp bëgg ko di dëggal ay waxam saa yu waxee dëggal ga ñu koy firndeelee ci topp ga loolu yépp dafa ànd ak nag suñ gisee luñ jàpp ne doxin woowu moo gën ñu ñëw daal di koy wax ne ko ñun nag lii mooy suñu gisiin bu leen ca digalee ñu def ko bu leen ko bàyyiloo ñu bàyyi ko moo tax wax saw gisiin sa kilifa lu am solo la ni ko Seydina Omar radiallahu anhum daan waxee yonent bi alayhi salaam te mu wax ko ci ay misaal yu am solo kon yoo ñooñu ay saxaaba lañ ñoo xamante ne ay royuwaay lañ yonent bi alayhi salaam waxoon na ne sama àndandoo yii ay gindiwukaay lañ ku ngeen roy ca ñoo ca moom rek dangeen ngeen gindiku da aw ca yoon wa yàlla nañu yàlla defal tawfiixi ñu teg suñu tànk fa sunu baay yooya te ngeen seen tànk ci barkeb yonte bi alayhi salaatu wasalaamu in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu